aw tiis ci jëlëg pël euh, gendarme bi nga xamante ni moo tàbbi woon ci xurwa fa woon mujj nañoo yem ci néewam muy xibaar bu tiis lool sapeur yi sax ñoo mujj yóbbu néew bu hôpital euh, di bassin d'eau boo xamante dañu ko fa daal di ubbi woon ngir pay gi ñeel euh, teen ab gaz bay lakk boobaak léegi bu fortisa Cheikh Anta Diop daanaka ñaari waxtu ñu di ko doon seet di ab sandarma boo xamante ne nag day monter garde fi nga xamante ne moom mooy tenab gaz bi nga xamante ne toll ci weer ngi ni daanaka muy tàkk kenn mënu koo fay moo amee nag fii ci Ngajaga ci dëkk bu ñuy wax jëlëg pël fii nga xamante ne fi da teen bi tàkke de dañ foo gasoon nag pax mu rëy rëy dafam ndox ngir nag ndox moomee ñu mën koo jël di ko nag dooleel ngir mën a fay li nga xamante ne moom mooy teenu gaz bi waaye nag kii nga xamante ne moom mooy sandarma bi bi mu ci duggee daanaka def nañu ñaari waxtu sapeur pompier di ko wër mënuñoo fexe ba teg gët ci mujjantal gi sax bi ñu ko génnee dafa ñàkk bakkanam di ab mbànd moo xamante ne dañ koo gasoon mu toll ci ñetti mètre ak genn wàll waaye nag ñi nga xamante ne bi ñu génnee néew bi de dañu ko yóbbu ci morgue hôpital moom Abdou Aziz Sy Dabakh bu Tiwaawan nag ñi askan wi nga xamante ni ñoo yeewoo ci diggante ngajaga jëlëg pëlëg jëlëg wolof bi ñu déggee xabaar bi ñëpp fëx dem ci bërëb ba waaye nag takk der yi daanaka lañ ko wërngal fexe ba askan wi duñu ko mën a jage ngir seen kaaraange